di wax ci turu association transporteur conducteur gros porteur ànd bokk liggéey Touba. di wax monsieur le ministre Oumar ñoo ngi sa gannaaw ñun waa association euh, transporteur conducteur Touba ñoo ngi sa gannaaw fas yeneen nañ laa jàppale ci sa liggéey ci bépp liggéey <coughs> monsieur le ministre Oumar bëgg nañ nga jàppale ñu. ci li nga xam ne mooy am ci àll yi ñu di ko déglu mel ni jam ñaajo bëgg nañ nga defal ñu fii Touba garage gros porteur boo nga xam ne oto yi dinañ fi man di gaare ba oto yi nga xam ne dañuy dem Fuuta ak di dem Ndar wala ñuy dem Mali buñ fi exeetee mën a fanaan foofa am sécurité ba kenn du leen sàcc kenn du leen indil ay jafe-jafe ba buñ xëyee mën a dem parce que seetlu nañ ne accident yu bëri li koy wari lit ci loolu lay bàyyi ko parce que gis nañ sëfoor si bu ñu egsee fii Touba dañuy sonn mais buñ sonnee duñ noppalu ndax amul sécurité dañuy forcer bëgg a continuer te buñ continuer mën naa nelaw mën naa jur jéeya loola nag la ñuy xeex te fas yeneen nañ ci ànd ak yow jàppale la ci bëgg nañ nga jàppale ñu ci tamit ba nga xam da ngañ defal garage gros porteur camion yëpp man di fa taxaw man di fa fanaan na mu gën a rafetee na mu gën a baaxee bëgg nañ tamit nga jàppale ñu defal ñu formation boo nga xam si ne day yokk suñu capacité ci bépp luy màcc ci transport ak ci kaw bi ndax xam-xam moom du doy dañ koy sàkku fu ni bëgg nañ nga defal ñu formation boo nga xam ni dañ ci dolli ko bu baax a baax a baax bëgg nañ tamit nga jàppale ñu <coughs> jox ñu oto yu bees yuñ mën a liggéeyee <coughs> parce que ay jeunes lañ bëgg nañoo liggéey suñu réew ay ndaw lañ ñu bëgg liggéey suñu réew te fas yéene nañoo liggéey suñu réew bëgg nañ nga jàppale ñu jox ñu oto yu bees ñu liggéey suñu réew ndax seetlu nañ accident yeet bu dee 90 80 yëpp oto yu màggat ci li koy waral la bokk ndax oto yu màggat yi dana toll fa nga xam si ne dootu mën a tenir leen ni te ay ndaw lañ yoo xam ne bëgg nañoo liggéey suñu réew. li tax ñu wootee woon te ñoo ñëpp dañoo dajaloo ci Touba wax dëgg yàlla dëkkuwaay bi ñu dëkk ñu xool dëkk yëpp ñu am nuñ leen di defal nu dëkk yi doxee président Macky Sall nii loolu la bëgg dëkk yëpp am ko ñu ñu dajaloon fii doon ay ndaw ne fii ci Touba doole suñuy xalaat boole suñuy doole àndandoo dem ci sëñ bi tiis ko ko pour kuñ ci jàppale bi loolu maanaam si sunu oto ñun ñooy jël ci ñun ñooy dem Kédougou wax dëgg yàlla yoon wi am nay jafe-jafe tuuti amul jafe-jafe ñu bëggit kuñ ci jàppale ci sunuy ndaw yi ci sunuy ndaw yi dem ci yoon wi ak seen ndaw yi dem ci yoon yi ndax wax dëgg yàlla guddit safóor bii daw nga am na noo koy téye ci àll soo ko bàyyiwaatee pour mu jógaat dem ay siditam dina xaw a wàññeeku ndax safóor mën naa jóg dem waaye da nga koy jàpp mu tardé benn tardé boo xam dem bay gëmmentuwaat jógaat dox loolu lépp mën naa andi jéyee ñu bëggit doo xam ne toujours oto yi maanaam bu ñu dawee am nañ fa wax comme ni Thierno Mbeng Mbeng mi wax sëfoor bu dawee ba soon war na am fu mu gaare taxaw mu dib dëkk ndax àll kenn mënu ta sal sa bagage jàmbur ay millions jàmbur dem ba ci àll gaare foofa ñu fekk la fa agressé jël bagage yi borom ni la danga may danga may fay doo am feneen foo ci jaar ñu ngi ñu ngi samit gërëm président gar góoru xuma ci moom it jàppale bi mu ñu jàppale wax dëgg yàlla seet seetaanuñu képp ñun chauffeur yi am fii képp ku ci am problème bu ko góor a yëgee dina ci taxaw nu mu ci taxaw amul une amul deux heures amul trois li tax ma àndoon ak moom ñoom mooy ñoo bokk dëkk Touba ñoo bokk aussi secteur transport ma gis leen ñu nekk ay jàmbaar doon ay transporteur ak ay chauffeur ak ay coxeur ci gàttal daal mun naa ne képp koo xam ne mu ngi ci biir Touba di yëngatu ci wàllu gros porteur dañoo dajaloo ñoom ñëpp. taxawal benn fédération boo xam ne moo lëkkale mboolem transporteurs yi ak képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci camion ba ci apprenti bi mi ngi ci biir. li war a daje boobu tam mooy bëgg a suqali seen liggéey bëgg a yokk seen koom-koom mais bëgg yokkutam li nga xam ne mooy dëkk bi ñu nekk di Touba ba dëkk bi gën a yokk wàllu transport gros porteur. loolu nag bi mu amee ginnaaw ñoom bu ñu dajee ba waxtaan ba déggoo am seen këyit lépp sotti euh, ku ne xam ne ne Touba euh, boo fi da boo boo organisé wu ba pare. da ngay def li Sëñ Blaat doon wax Sëñ Blaat dafa doon wax ne nit ku nekk say kilifa ak say mbokk say yitte bu ñu ko yëgee ci jàmbur bu ñu ko yëgee ci mbedd moo tax ñoom bi ñu jugee bien avant danoo dem seeti Sëñ Muntaxa won ko ko waxtaana moom ci liggéey bi mu rafetlu ko ñaanal leen ci wax ne dina leen ci jàppale kéemtalaay kàttanam bi ñu fa jógee tam ñu dem Sëñ Sidi mi nga xam ne tam moom la ñu dénk dëkk bi la même soo Sëñ Sidi tam wax dëgg yàlla rafetlu na ko trop kontaan na ci lool ñaan na ci tam wax ne tam buñ fiy géej te lépp loo xam ne tam ñu ngi koy doxal ci euh, groupe porteur Touba nañ ci ñëw waxtaan moom ndax liñ ko wax la lu rafet lu baax la loo xam ne day dëkk bi sëñ Bass nag fa lañ jógee tey mu sëñ Abdou Khadim mi nga xam ne euh, sëriñ bi moo ñu booloon ak moom ñu waxtaan moom ci wàllu transport gis nga ne waxtaan nañ fa ak moom lu bari lu jëm ci wàllu formation renforcement de capacité parce que xam nga ne accident yi bëri na te bëri na ci loo xam ne ñàkk formation moo koy waral accident yi bëri na bëri na loo xam ne itam chauffeur si dawal ba gëmmentu te duñu am fenn fu ñu noppali ko dëkk boo taxaw ñu la foo taxaw ñu jàpp te boo taxawee ci àll bi ak marchandise su jàmbur ñu agressé la bëri na chauffeur yoon agressé na leen faat seen ba kenn mujjul feen ah, grâce nag ak ak euh, maire Touba gis nañ ne Touba moom du ñu sabo kenn ñu tëj kenn mais Touba mooy deuxième ville du Sénégal tey ñu am infrastructure bu mel ni Ila Touba Touba di Carrefour kon moo tax ñu ne bëgg nañ benn gare des gros porteurs bu mag comme bi nekk jam ñaajo ba nga xam ne benn chauffeur dootul ñëw Touba camion di am problème foo fanaan wala foo yendu di yokk ay coono di yokk tam li nga xam ne mooy insécurité dëkk bi encombré dëkk bi donc garde gros porteur boobu gaa yaa ngi ci waxtaan nañ teg sëriñ bi nga xam ne lépp ci loo xam ne nekk ànd na teg ñun te gëm na ne dina ci jàpp ba gaar boobu nekk ñu teg ko ci loxoy transporteurs yi ak chauffeurs yi ñu seere ko ci anam boo xam ne Sénégal na ci gis boppam mais lu jëm ci wàllu gros porteur renouvellement bi tam gis na ne état koy def mais ñoom ñii ñoo yor camion yi moomal ko seen bopp mais am na ñeneen ñuy dox seen diggante état di wax na ñooy transporteur gros porteurs yi lépp lu ñëw ñu koy teg ci seen te loolu nekkul kon dañoo bëgg bis ni ki tey président de la république ak ki nga xam ne mooy monsieur le ministre Oumar Youm mu xam ne ay collaborateurs yi nii ay àndandoo ngi nii yoo xam ne pare nañ pour ànd ak moom ci lépp li nga xam ne daf koy def ci gros porteur ñu ànd ceeg moom mu jàppale leen ba Touba gis seen bopp ci gros porteur Sénégal gis seen bopp apprenti itam ak ñëpp ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo dem bi ak dikk bi ñu gis seen bopp ci li nga xam ne mooy li état bi def ndax lu rafet la lu baax la waaye na accès gu ci ñoom kon ñoo ngi koy taalal loxo ba lépp lu muy def mën a accès ci ñoom comme ni leen ko sëriñ mi ñaanale bëgg nañ ay oto yu bees yu jàppandi yoo xam ne dañ koy tekki loxol transporteur parce que fii ay transporteur ñoo fi taxaw ak ay chauffeur kon bëgg nañ état jàppale leen ba ñu am oto yu bees parce que oto yu màgget yi bokk na ci liy causé li nga xam ne mooy accident de la circulation yi mais manque de formation de renforcement de capacité bi tam ci la bokk ñàkk waxtaan ci bokk ñun nag en tant que ñoo xam ne ay gros porteurs lañ ñoom dañoo jël seen engagement ci ne seen i chauffeur ak seen i travailleurs dina leen defal ay formation de renforcement de capacité ba nga xam ne accident yi nga xam ne dafay sababoo ci chauffeur si loolu dootul am ci formation jaarale ko itam ci sensibilisation boo xam ne lépp dañ koy def ci ndigalu sëriñ bi def ko itam ci àndandoo boo xam ne dañ koy nekk ak ki nga xam ne mooy Miss Omar Youm Miss des Transports terrestres